def nañ quatre vingt dix mille kilomètres à l' intérieur du Sénégal def nañ trois fois tour du Sénégal te kenn xoxataluñu kenn terewuñu ko parce que on le faisait pacifiquement ñun fu ñu jaar nit du fa dee fu ñu jaaroon ñun en 2010 ba 2012 nit deewu fa fu ñu jaaroon en 2009 ba 2010 coow amu fa dara amu fa dañ doon dem vers les populations waxtaan ak ñoom pro am leen proposé donc nekkuñu ñu woon ci mobilisation ci. interdire voie publique bi nit ñi di ci dox parce que il faut euh, assurer le maintien de l'ordre parce que voie publique bi soo ko interdire nit ñi dox rek di nga tere nit ñi nga xam ni seen yoon newu ci ñu bañ a doxi seen i soxla. Mm-hmm. di dem la circulation des personnes et des biens des euh, personnes ay forces de défense et de sécurité ko di ko topp yaakaaroo ni amul benn aspect politique. bu savez vous êtes juriste ci jouru procès bi yow lañ doon déglu xam nga lu code pénal wax ci euh, euh, blocage voie publique xam nga lu ma ci wax yaa ma ko gën a xam te je pense que soo duggee ci côté boobu rek ay yaakaar ni caravane soo koy def. à l'intérieur du Sénégal bi bloquer circulation bi da ngay demander autorisation da ngay informer parce que soo jaaree ci tali bi route nationale numéro 6 bi mu jaar ba mu fay jaar oto dawatuloon les gens qui quittent Ziguinchor pour aller ak Kolda ba mu tollee Goudomp oto dawatul amuloon ña ca feebar amuloon ña ca dara donc donc sooy dem bay bloquer voie publique bi da ngay def déclaration pour nit ñi xam ko ça c' est la première chose. mais déclaration est ce que weesuwul par exemple le fait que moom mu publiquement mu def benn. Euh, l' administration elle est écrite. non mais je veux dire mais je veux dire mais am na aussi parole officielle aussi. quand elle a quand elle a déclaré officiellement que wax na ko. il faut assurer la sécurité pour ñu fa dem.